Euh, mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci fasante ko lu rëggeeg wute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróomi waxtu jot na ca Medina Cheikh bisimila ci xibaar yi euh, bokk na ci li ci gën a fës ay nag euh, migrant lu war a toll ci juróom benn ci ay junni doomu senegal daal di ci nag bokk daal di nag di <laughs> jaar ci barrage bi nga xam ne moo nekk ca nord bu Maroc ngir dugg foofa ca l'Espagne dinañ ci daal di jukki ci ndorteelu xibaar yi euh, dinañu wax itam jëme ci lakk-lakk euh, bu métti bi am euh, ci ab immeuble R plus ca marché central bu Kaolack foofu juróomi dépôt yi magasin daal dinañu nag lakk ba jeex xoppar gañ ca daal di nag ñàkk xayma nañ ko ci ay millions. yu bare bare dinañ ci daal di jukki ak juróom benn waxtu yi nga xam ne sax compagnie incendie ak secours bu Kaolack def na ko ngir daal koy nag fay eh, dinañu jukki jëmee nag ci wàllu eh, mbas mi ak situation bés bi eh, kenn ki daal di faatu juróom-ñeenti amee ci ay gaañu gaañu docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ci ab communiqué bi ñu daal di nag génne li ni mel lañu daal di nag xamle dinañ ci daal di nag addu dinañu wax ci coowal suuf ci ponk wax sa xalaat yi dinañ ci daal di nag bokk xew ca Dougar jamono jile ca mouvement Y en a marre di ci lëkkaloo ak ay euh, euh, kuréelu société civile yu bari ngir daal di àddu nak ci mbir moom moomu ñu jàpp ne juróom-ñaar fukk ak ñaar ci hectare suuf leen bëgg rek nangu seen loxo euh, jéggi na dayoo redécoupage bi itam ci ponk wax sa yi dina ci daal di bokk kunun ak Kër Ndiaye loo nee ñu daal lànk nañu ne Sangalkam duñ ca daal di nag bokk ba tax nag ci pétition ba ñuy daal di nag amal jàpp juróomi village ya séq barab boobe mën nañu demal seeni bopp ci wàllu nag commune dinañ ci daal di addu Barthélémy Dias nekk yëkkati loxoom ne mairie bu ndakaaru lay euh, daal di nag sàkk ñu ci bari ci Sénégal yi gis ne daal mooy candidat bi war sax ngir euh, daal am poste boobu ndax profil bi daal na koy rek wane gëstu geek Odile mi ngi ci laan ci biir xibaar yi lay doon dinañ ci toftal yeneen i xibaar njiitu réew mi jamono ji nag ca France la nekk ak yeneen i président réew l'Afrique ngir daal di waxtaane koom-koomu l'Afrique bu ñu bëgg nak ñu daal di koy yëkkati gannaaw nag euh, wàcc bu mu wàcc ba 2 virgule 1 pour cent ci wàllu nag PIB bi naka jàngatee koom-koomu mim réew ba ñuy waxtaanee ca l'Europe ngir daal di koy suqali mooy ponk bu mujj bi ci wax sa xalaat ci kanam dina ci ubbi antenne bi Alassane waa demoon na ci sottandikukaay bi faram fànce Guinness kiis lay doon. Sud Adama Ndione. ci kàddu gi niñ leen ko waxee ci bopp xibaar yi ay doomu Sénégal yu bëri bokk nag ci juróom benn junni eh, ci ay migrants yi nga xam ne dañoo daal di nag forcé eh, jaarukaay ba dox diggante eh, Maroc ak Espagne ñu gën koo xam nag ci enclave espagnole bu Cheta mu nga nag ci bët gannaaru Maroc foofee nag ab mbir mu doy waar moo fa daal di nag am ba ñu jàpp ne sax Rabat ca Maroc ñoom ñoo daal di nag yombal mbir mi gannaaw ba nga xamee ne. Euh, mënuñu rek euh, digérer ba léegi hospitalisation ca Espagne leader bu front euh, Polisario dañ ciy daal di teewlu suñu nattango ba ca Maroc di correspondant bi Oumar Balde. lu tolloog juróom benn junniy nit ñoo jóge fii ci Maroc. dugg ci Espagne buñ nee nag dugg ci Espagne maanaam xam nga Espagne dafa am euh, lu ñuy wax ay enclave maanaam diggante Maroc ak Espagne géej gi Méditerranée moo leen séparé waaye ci biir Maroc Espagne am na fa ay dëkk yoo xamante ni nee na moom moo ko moom te mu koy xëccoog Maroc depuis très très longtemps léegi émigrants yi gën a bëri buñ doon ñëw fa la ñuy dugg euh, at yi yëpp nag pour ñu dugg da doon trop waaye diggante barki démb ak tey juróom benn junni ñoo dugg ndaxte bañ ñëwee garde côte marocain apparemment dañ leen bàyyi ñu dugg donc si ñoo ñu dugg nag ay immigrants yu bëri yi nga xamante ni ñoo jóge Afrique waaye tamit ay doomu marocain yu bëree bëree bëri ñi ñu jógee Afrique nag ñàkkul ni Sénégalais yi ñu ngi si instant yi nii amul benn kenn koo xamante nii ci wàllu kilifa yi fi toog firnde na loolu wala vérité na ko mais boo doxantoo ci mbedd Maroc it gis sa immigrants sénégalais yu bëri yoo xamante ni dañ nekk bëgg a jàll Espagne donc lii occasion la woon boo xamante ni yu dañ ciy profité ba loolu xew tey nag li ñu gis mooy. boo doxantoo ci mbedd Maroc yi maanaam euh, ci ville yu rëy yi rawatina fii ci nord du Maroc eh, immigrants yi doon taxaw ci mbedd yëpp instant yi kenn gisatu leen donc ce qui ñoom ñëpp dañoo dem foofu boo xëyee suba teel sax di nga gis ñu def ay groupe euh, jublu foofu ngir mën a jàll te euh, dugg foofu nga xamante ni mooy Ceuta li tax mu mu xew sax la ñuy wax mooy Maroc ak Espagne fan yi déggowuñu bu baax ndaxte Maroc euh, dafa mere Espagne ci li Espagne accueillir gi nga xamante ni mooy Brahim Ghali moom mooy euh, njiitu poli front Polisario front Polisario ba nga xamante ni moom dafay revendiquer Sahara occidental alors que Maroc mu ngi jàpp ni loolu ci province mi la donc front Polisario boobu seen chef moo feebar Espagne accueillir ko li ko Espagne accueillir nag Maroc loolu na gis ni warul woon ne loolu nag moo waral ba immigrants yi dem dugg Espagne ay marocains yu bëri bokk nañ euh, d'ailleurs espagnol yi nee nañu instant refoulé nañ luy tolloog presque entre mille cinq cent ak deux mille sept cent personnes maanaam lu lu ëpp ñaari junniy nit Ah, ah ci la ñuy daal di nag ah, wax sax ne ci wax sa xalaat bokk na ci ah, ndir ñu bëri réewu l'Afrique yi ñuy daal di wuti bitim réew ci jamono joo xam ne ñu ngay waxtaane koom-koomu réewu l'Afrique ca France ngir rek daal di xool naka lañu koy daal di suqale fii ci Kaolack ab lakk-lakk bu métti moo fa daal di nag am daal ci ab immeuble R plus 1 ca marché central bilan bi nag juróom ci ay dépôt magasin yu defoon ay produits cosmétiques la ñu ne dafa daal di nag lakk ay commerçant distributeur ñoo ko moome woon xayma ay téeméeri million la ci suñu rek euh, koppar daanaka juróom benn waxtu sapeur pompier yu fanweer ak benneelu compagnie wu incendie euh, secours la ñu daal di nag def ngir daal di fay lakk-lakk boobu dañ ciy teewlu capitaine Sadia Dia euh, bu trent e compagnie bu incendie ak secours bu Kaolack ci micro Mamadou Kaba. tey bi ñu tawee tey le 18 5 2021 bi minuit euh, weesoo juróom-ñetti simili la ñu xam na kuy tàkk ci marché ci marché central bu Kaolack bi ñu ko waxee nag donc automatiquement suñu engins yi dañoo décalé ce qui fait minuit 20 premier engin bi déjà yegg si na euh, moom it aussi bu mu yeggsee ni mu gisee safara bi tout de suite dafa laajee renfort takk-takk moom bu amee ci marché liñ ci gën a ragal mooy mu law bi takk-takk bi amee bâtiment bi nga xamante ni R plus 1 la nga am na ay dépôt yu nekk ci biir à l'étage cinq dépôt am nañ gis nañ ko ci biir ak aussi am na ngandam magasin ci suuf aussi boo xamante ni ay produits divers moo ci nekk yàlla dimbali ñu quand même donc pour mun cee génn et loolu pour ñu mun ko def il nous a fallu ñu mobiliser quand fanweer ak juróom yi nga xamante ni sapeur pompier donc ñaari officier maanaam ñi ak commandant compagnie Fatick bi euh, ay moyens d'extinction lourd ay engins d'incendie lourd yi bénéficier nañu ñu ko mettre à notre disposition tam bras élévateur vraiment yokk na en tout suñu mën-mën bon li fi yàqu moom bëri parce que bu ñu xoolee tey euh, bâtiment bi fu mu toll mën nañu ne daanaka pour liñ fi mën a sauver ci biir néew na boo ñu xoolee par rapport ak marché en général daal bu tàkkee ni muy demee yàqu-yàqu yooyu aussi mën nañ ko comprendre parce que mënoon na fay gën a law te bu lawoon peut leneen mënoon na fi yàqu bu ñu xoolee bâtiment bi nu mu bindoo bâtiment bu mag la boo xamante dafa nekk tali bi mais ci kanam aussi dafa ay cantines yu ko wër donc de part et moom ci angle la nekk donc loolu nekkoon na ay facteurs yoo xamante ni na tax euh, safara si gën a law mais comme comme ni nga ko waxee taal di ko sant Euh, grève bésub lëmm boole ko nag ak doxub ñaxtu pensionnaire ya fare ca INEFJA école boobu di tàggat yi nga xam ne seen bët du gis ñoom nag euh, dox nañu ba gouvernance euh, daal di nag sàkku ab infirmier boo xam ne mooy yore wàllu nag paj mi ndax ka fa nekkoon ba mu demee ba léegi kañu fa daal di nag teg la ñuy wax bénévole lay daal di nag def dafay def rekk ngir Euh, liggéey ngir rek euh, yàlla xaaru ca dara ba tax ñu jàpp ne lu ni mel faaw ñu dabaatal ko gouverneur ba nag nee ñu amal nañu affectation ba noppi ca Thiès Babacar Ndao ndongo yi nekk ci daara silmaxa INEFJA bu Thiès dox nañu bàyyeekoo seen daara jooju ñëw ba gouvernance bu Thiès ak ginnaaw bi ñu sàkku ñu wutal leen ab docteur bu leen faj 2017 ki fa nekkoon à la traité ba léegi jàpp na ne nguurub Sénégal mi ngi leen di seetaan Fallou njaay moom moo jiite ndongo yi nekk si INEFJA du premier am na ku fa nekkoon mu dem retraite 2017 2018 ñëwoon nañ fi bu ngeen fàttalikoo journaliste yëpp ñu ngi foon gouverneur bi fi nekkoon digoon ñu ne dinañ am infirmier semaine prochaine la wax semaine prochaine boobu moo tàllalu ba jamono ji xam naa ne semaine prochaine moo diire deux ans wala trois ans et demi ba waral tey jii boobu ba léegi dara amut amuñu infirmier d'état moo waral tey jii ñu ñëw ñu ngi nga xam ne ñooy ministère nga xam ne am amul fi ba ngoon 24 heures jàng moo xam ñu nekk ci lycée collège wala primaire fële ca biir ñuy def formation professionnelle lépp lañ taxawal pour laaj li nga xam ne moo di suñu infirmier ndax santé lépp mën nañ koo négocier ba mu des santé xale yi silmaxa jàngaan yi jàpp nag ne donte gouverneur defal na leen ay dig ba wax leen sax turu infirmière biñ fa war a indi Hortense Faye ñoom nee nañu nag dañuy xaar gisal seen bopp wàllu njaay gouverneur wax nañu ne concret dañoo sonn ci promesse yi jamono ji li ñu soxla mooy lu concret ñu doxul ñaxtu si jàmm naam donte yëg lu wuñu woon waaye it police si ndigalub kilifa yi encadré na leen si jàmm Babacar Ndaw Thiès Sud FM Babacar Ndaw daal di koy nag jaajafal ñu daal di wax jëme ci Euh, yow wàññiku bi daal di am ci njëgu test yi ñuy daal di nag def wuy tukki ngir dem bitim réew di test Covid yi gis nañ ne nag euh, jóge na ci li war a toll ci juróom-ñetti junni daal di wàññeeku ba juróomi junni euh, boobule dogal sax ministère bi ci boppam wala rek kuy UMOA ñoo daal di jël dogal boobu waaye ministère bu Sénégal di xam ne nag tàmbale nañ koo jëfee buñ sukkandikoo ci institut Pasteur ñoom ñi daal di xam ne ne boobule tarif mën nañu jàppande sax voyageur yi tàmbalee def seeni nag voyage ni ki tey euh, jile euh, wàññil nañ leen test euh, yooyu le ñu daal di desandi ba tey ci wàllu nag Covid 19 bi ak situation bés bi nga xam ne daal nañ koy rek fësal neenu ñu nag kenn daal nay faatu diggante démb ak tey lu war a nag toll ci ay cas grave yu juróom-ñeent daal nañ koy itam lim ñaar fukk ak ñeent ci ay nit lañu ne ñoom ñoo daal daal di nag amee eh, feebar eh, boobule eh, ba tax autorité sanitaire yi ñoom daal di ci nag addu la ñu daal di nag wax mooy ndakaaru amee na juróom ci cas communautaire yi maatam itam am ci juróom Sigicoor am ñaar benn cas Kaolack Kédougou ak Tambacounda ni ki démb nag lu war a toll ci junni ak juróom benn téeméer ak fukk ak juróom ci ay nit daanaka vacciné nañu leen ci Sénégal gi yépp Sud FM seen rajo ñu wëkk yéen ci xibaar yi juróomi waxtu tegal fukki simili ak benn. di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. wàllu suuf ci la ñuy daal di nag euh, wax rawatina la xew ca Dugar ba tax Y'en a marre jamono ji euh, daal di ci amal ak euh, ndaje ak askan wa fa daal di nag dëkkee ak ñu bari ñu yëngu itam ci wàllu société civile bi ci loolee nag la ñu daal di xamle ne coowal suuf boobu la ñu bëgg mu daal di nag dàkk jamono ji itam askan wa fare nag ca dugaar la ñuy daal di nag sàkku mooy lu war a toll ci juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay hectares yi nga xam ne société réew Maroc boobu di PICOP Diop investissement moo ko daal di nag bëgg a teg loxo li ni mel nag la ñu ne rek bëgguñu mu daal di nag jàll ndag yi boobu kii di Birama Ndiaye ñu ngi ko ci daal di nag euh, topp euh, ñu daal di jokko jekk moom ca lan moo ca daal di nag ruus Birama ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay Adama. mu mel ni waa Yaana Mar coow la xew ca 72 yu dugaar lañ doon wax. waaw loolu ci loolu la ñuy wax ni pare gu ñu euh, kii leen di Aline Faye nekk conseil municipal ca Diamniadio moo wax ci turu askan wa yeewu ca Dougar ak communauté Safi yëpp jàpp ne nag yëf yi moo ngi tàmbale ci atum deux mille dix bi nga xamante ne nag Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade moo leen daal di woon a jox pick-up naar yooyu lu toll ci juróom-ñett fukki hectare foofee nga xamante ne moom mooy ca Diamniadio ca bërëb boobee sax moom la ñu def gendarmerie bu Diamniadio ci mujjanteel ga nag naar yi jàpp ne. Euh, foofee bërëb boobee daal doonat la nga xamante ne moom moo leen arrangé ñu daal di dem foofee ca Dugar di fa laaj lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñeent hectares comme ni nga ko waxee te loolee nag waa Dugar jaab laaj leen ne nag ana ban kayit mooy firnde ne daal di nañ leen affecté li nga xamante ne moom mooy soixante-quatorze hectares yi ngeen di laaj fii léegi ci jam ñaajo boobu ba léegi def na fukki at amul benn kayit ba nga xamante ne daal di nañ ko tek ci askan wa nga xamante ne ñoom ñoo yeewu foofee ca Dugar ngir ñu daal di fësal ne ñoom ñoo moom bërëb boobee ñuy daal di ñuy daal di laaj loolu nag tax na euh, askan wa fa yeewoo ci kàddu kii la di Aline Faye di ko ñaawlu bu nii jàpp ne nag bu fekkente ne dafa am réaffectation ba nga xamante ne moom mooy suuf si waroon na am beneen décret ba nga xamante ne président de la république que mu doon euh, président bu fi nekk moom moo ko waroon a xaatim jox leen ko wante nag ba léegi ni amut benn kayit ba nga xamante ne nag bàyyeekoo nag ci autorité bi daal di leen won ne euh, soixante-quatorze hectares yooyu ñuy daal di laaj foofu te jam ña ñoom ñoo ko daal di moom ba tax rek ci kàddu Aliou moo ngi woo communauté saaf yëpp ne lii rek nañ ci bañ ba tëdd ci naaj bi ndaxte nag bu fekkente ne ñoom euh, lii ñuy jëm foofee ca Dugar bu fekkente ne jàll na feneen lañuy dem lu demee ni ki ci ki ak yeneen dëkk dëkkaan yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofee ca communauté saaf yi ba tax rek ñu daal di woo njiitu réew mi ne nañ ci àdduna laata làmbaay ñaaw wala làmbaay a gën a ñaaw ndaxte nag li fa jot a xew ci ayu bés bi ñu génn umpalu kenn ba ñoom itam ñu daal di ñaawlu bu baax a baax taxawaay gi nga xamante ne kilifa yi daal di nañ ko yor rawatina way takku der xëy rek daal di leen andi fitna ba nga xamante ne dafa jéggi dayo dugg seen kër yi ñii ñu toroxal leen ñii ñu xor ñooñal leen bu tax rek ak itam pat pataral bi nga xamante ne préfet bu Rufisque daal dina ko def ci fànn boobule noonee daal aadama la ñu mën a jàpp ci ndajem taskat xibaar yi nga xamante ne waa askanu dugaar andi ca FRAPP France ak mouvement Y en a marre ñoo ngi ko amal fii ci seen siège ngir rek daal di ñaawlu coow li am foofee ca dugaar sàkku itam ci kilifa yi képp ku ci mën a yëkkati kàddu nga yëkkati kàddu lambay gën a ñax aadama waaw Birama jaajëfal ko ñu fàttali ne coowal suuf yooyu ci bokk na ci wax sa xalaat bi eh, moo indi sax coow li ci découpage bi ñu nemmeeku eh, collectif eh, beneen bi yore fexe ba def commune Kounoune ak Kër Ndiaye ñoom nee ñu daal lànk nañu ne duñu bokk ca Sangalkam lañu bëgg ñoom askan yooyu fare ci juróom ci ay village nee ñu daal projet bi nga xam ne namm nañ ko mooy ñoom ñu daal leen jox ñu demal seeni nag dëkkandoo bopp ba door nañ ci sax ab pétition am na doxum ñaxtu itam bi ñuy amal ci samedi ji Josette Kali projet de découpage bi ñu nekk di waxtaanee ci jamono yi gën naa yëkkati population yu cité Mbaba Guissé ak yeneen cité yu ko wër kunun ngalab noone kunun village kër Daouda Sarr ak kër Ndiaye di xamle ni bëgguñu benn yoon ñu boole leen ci commune bu Sangalkam seen mbébét moo di ñu nekk ab commune boobee xeex daanaka ay at a ñu tàmbali ko Mapenda Faye di responsable réalisation de Kounoun Kër Ndiaye Lo. depuis 2013 ñu ngi koy wax ndax dañoo jël ba taxal ñu ci Mbambilor da ngay jóge fii tëpp benn commune dem ci sa commune loolu nag muy incohérence boo xam ne ñëpp xamanoon na jaaduwul injustice mu bëgg a réparer nag dañ naan buy réparer injustice créer injustice ndax bu fekkente ne ñun en terme de pouvoir en termes donc de développement en termes d'infrastructure en termes de compétence presque ab dëkk li mënatu ñoo bootu ci kenn moo tax it ne loolu vraiment du loo xam ne lu normal la. ginnaaw ba ñu tàmbalee ay pétition bi les collectifs mu ngi amal yeneen ci ay plan d'action jëm ci boobee communalisation. dañuy dugg ci gox goxaan yi xamal leen li xew. waaye it def ay manifestation def ay porte à porte yoo xam ne lépp rek démarche bi nga xam ne rek moom la ñuy prôné mooy démarche inclusive caravane yi week-end bi passé sillonné nañ yenn gox yi yi nga xam ne suñu cinq villages yi ak cité environnante yi am na yeneen yu des nag waaye wa wër gox gox goxaan yi nga xam ne yëpp ñoo composé yi nga xam ne mooy suñu projet te moom lañ bëgg mooy communalisation danañu permettre ñu mën a développer suñu gox goxaan yi nga xam ne ñu ngi nekk en expansion te mooy bi nga xam ne c'est la jeune la plus defaraat lépp li nga xamante ni jàpp nañ ni jubul ci boobee mbir. critères yi nga xam ne yëpp mooy définir benn gox mu doon commune yooyu yëpp vraiment de la république mënut a su ko defee askan dañ ci gis seen bopp découpage bi dañ koy applaudir ndax injustice la boo xam ne dañ koy réparer waaye nag bu ñu taf mukk ci sàngal tam waaye li ñuy demander daal mooy ñu def ñu commune bopp bu ñëpp dañ gis suñu bopp te jàmm dana am. ngir ñu gën a dégg nag seen xeex bile dinañu amal ñaxtu ci gaaw gi mbébét bi moo di Kounoune ak Kër Ndiaye nekk benn commune. nekk benn nag euh, commune ñaari diwaan yooyu le euh, ba tey ci découpage yi nga xam ne njort nañ ne sax wàllu local yi bokk na ci la ko waral Barthélémy Dias daal di ci yëkkati loxo wax ne daal mairie bu Ndakaaru lay sàkkuñu ci bari ci askanu itam joxe nañ seen xalaat ci candidature boobu la ñu gis mooy profil bi war daal ngir jiite boobu la institution moom Barthélémy Dias daal dina koy yor Odile Binkila muy génn kooku dama ko fànn. kooku vrai africain la dama ko gëm. góor la gàmmi la. ñoom ñëpp ànd ne gongo ci candidature Barthélemy Diaz ngir jiite mairie bu Dakar. man ni ma gisee homme politique c'est quelqu'un qui se met au service de la population moom Barthélemy il veut servir sa servir sa population au contraire moi je l'encourage à aller plus loin que ça il peut être le maire de Dakar pourquoi pas. bu ñu xoolee ñi ñi doon ay maire Ndakaaru mais Barthélemy waxuma moo leen gën ñoo ko gën déedéet ñoo ko ëppale xam-xam ëppale mais en tout cas Barthélémy na dugg ci loo boobu. j'en suis sûr que am na profil xam te ne mën na déposer ci mairie Dakar parce lan parce la jeunesse ñu ngi koy topp ñu ngi koy déglu ñu ngi koy bàyyi xel lépp lu muy wax. nit dañ koy gis. ab njiit bu baax boo xamante ne wane na ay résultats yu baax ca mairie bu commune bu Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Diaz mën na doon sax njiitum réewum Sénégal bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi askan wi. mu ngi gere la mairie de Sacré-Cœur Mermoz. non xaw ma ci lu bëri mais écho yi ma ci am mooy kii gère correctement sa mairie. alors lan moo gën a yenu maana nit ki bugg a def lu ëpp li muy def bu fekkee ne itte askan bee ko tax a jóg il peut de devenir maire il peut devenir n'importe qui parce que c'est un homme moo nekk président président moo nekk président ba Kousulaay parce que gor day liggéey pour réewum dama ko fànn booyoo dëgg lay wax su ko ñëw dama ko ñëw maire ñu ngi yokk lii. ku dul Barthélemy tamit nañ dem jongante euh, askan wi mooy ñooy ñooy tànn seen maire. bu déposé anniversaire yu mu mën a bi mu mënta jàmmarloo dina ci génn incha ci janoom ak taskatu xabaar yi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai atum 2021 Barthélémy Diaz xamle na ni dafay daal di samp ndëndam ngir jiite mairie bu capitale sénégalaise bi ñu bëri nag ci askan wi ne waaw mën na ne ndax mën-mën bi mu ngeek moom ngir jiite mairie bu dakaar mën na sax yor mairie Washington waxuma ak Dakar. ñu daal di wax euh, desandi Dakar ak juróomeelu édition forum bi daal di jëm ci wàllu euh, foncier ci mbirum suuf mi nekk sax ci ponk wax sa xalaat yi euh, gouvernance foncière googu fii ci Sénégal ak yoon yañ ca war rek jaar kuréel gi ñu daal di nag teg ngir mu daal di saytu yoonu nag dialogue ba ñuy def ngir daal di koy nag dëgëral teg nañ itam ay yoon ñu nga xam ne plateforme bi jàpp na ne faaw ñu daal di def bilan lañuy ñuy nag am ci jafe-jafe nag suuf ak dialogue bi nañ koy tëral loolee ba conflit yu bari di faral di am ñu daal di koy saafara teewaay bi ak ci jamono yoo xamante ni suuf si màggul loolee moo waral xeex ci wàllum suuf di gën a bari ngir saafara li ni mel faw ñu amal ab waxtaan bu ñëpp bokk suñu sukkandikoo ci IPAR Cheikh Omar Ba moom mooy directeur exécutif bi. il faut que ñu euh, am ay pexe pour que xale yi mais aussi jigéen yi mais ñu koy defee dañu war a aar pour que mu amal njëriñ Sénégal pour que par exemple bu ñu waxee jigéen war jot suuf ñu xam ban anam a joxe jot jotee suuf ñu xam ni que foog famille bi dañu war a waxtaan ak suñu kilif ak suñu aada. bi lépp xalaat nag mu bokk ko ak conseil national concertation ak coopération rurale du Sénégal di CNCR Babacar Diop moo leen fa teewaloon. te loo wax ak communauté yi. dañuy ànd si ak yow. jëf ko mooy gën yomb. li ñu jàpp foofu mooy. collectivité territoriale yi. population locale il faut ñu jàppale leen. ñu gis seen bopp si suuf. waaw moom boo ñëwee. boo bëggee nu nekk doo buux. mais pour nga bañ ma buux nag. faw nu teg suñu condition nekkin. ngir plateforme directive plan affectation ak jëfandikoo suuf Tanor Moïse Dieng di conseil technique ca jawriñ bi ñu denk wàllu mbay mi. ce sont des outils consensuels. boo ñu teg ay matuwaay yoo xamante ni ñëpp ci ànd ci bokk moomeel yi loolee dina tax ñu mën a xam fan la ñu war a bayee fan la ñu war a dëkk fan la àll bi nekk waaye tamit yeneen réserve yoo xamante ni ci déggoo gu mat sëkk képp kuy acteur ci commune yooye dinañ ci ànd ngir wax ni bërëb bii la ñu jagleel lii wala lee. telle ginnaaw ñaari fanu weccentey xalaat ay santaane dinañu ko jébbal gouvernement bi ngir yorinu bu mucc ayib te sax dàkk jëm ci suufu Sénégal yi ngir moytandiku lépp luy xeexoo. ngir daal di koy wattandiku ci wax sa xalaat bi bokk na ci dinañ ci daal di àddu communauté internationale bi daal di sëgg nag ci talaata tey ji ca Paris ngir xool na ñuy suqaliwaate économie bu réewum euh, l'Afrique lu war a toll ci fukk ci ay ak. juróom ci ay président réewu l'Afrique njiit réew mi Macky Sall ci la daal di bokk ne ñu daal wàllu xayma bi yem ci ñaar yu tombal benn yoo jël ci téeméer ci PIB bi la ñu bëgg rek ñu daal di koy rek fulandi ndax xeetu récession lañ ko daal di nag euh, jàppee sommet sommet boobu itam euh, li ko tax nag euh, jóg dëgg mooy fexe ba bor yi ñu daal di koy nag wàññi waaye bu ñu sukkandikoo ci jàngatu kii di économiste bi di Demba Moussa Dembélé nee na la li daal di nag nëbbu ci woote googu euh, di sommet bi euh, mooy rek euh, naka lañuy ñuy daal di nag def ba ubbi économie l'Afrique naam waaye itam koom-koomu multinational réewum Europe ak l'Amérique naka lañ koy dabaatale ci réewu l'Afrique yi ñu teewlu njàngatam ak Adja Ndeye Marème Ndiaye. déjà gis nga du Afrique yëpp xam naa ni fukk ak juróom walla bu bari bari ñaari fukk dëkk ñu fa dem ñoo fa dem. c'est sûr que xam nga ñu daje yu mel ni dañuy wax ay wax bay dañuy wax ay promesse digaale euh, nit ñi euh, suñu dëkk yi danañ def lii danañ def lii seen bor mun nañu wàññi seen bor wala wut euh, yeneen ressource jox leen mais boo gisee affaire bi comme nasaraan ni ñu ko waxee lu jàppale dans les détails lu ñu promettre ak lu ñu def après du benn parce que dafa am une condition Euh, gis nañu daje yu mel nii c'est pas la première fois euh, lu ay promesse Afrique ak lu Afrique bi jot lu benn dina wute trop te dafa am ay conditions par exemple bu mu gisee France mu ne day bayal Soudan bor juróomu milliard euro euh, juróomu milliard euro xam naa ne def ko kooku xaalis bor boobu pour jënd ay arm ci seen guerre temps président Omar El Béchir te bayal boobu dafa am condition parce que déglu naa président Macron mu ne bon lañu bayal ci euh, bor bi comme ça mu mën a ubbi économie am euh, secteur privé c'est-à-dire euh, surtout secteur pétrolier xam nga Soudan dafa am pétrole donc bor boobu mooy dañu lay jox affaire dañ lay digal cinq milliards yu bayal la mais à condition nga ubbi sa économie nga bay suñu société bi ñëw foofu loolu lu ñu fa gagné xam naa ne moo ëpp cinq milliards yooyu te cinq milliards yooyu xam ne de Soudan mënu ko fay temps euh, euh, Omar El Béchiri donc euh, au total daal man gis naa ne Afrique du gagné lu bari. ñu daal di nag euh, desandi ci wàllu nag pétrole ngir yorin bu mucc ayib di gestion bi ci wàllu gaz bi itam ministère tutelle bi daal dinay rek amal ab euh, plateforme digitale bi nga xam ne ci way xarale bi mooy amee taxawaayu cadastre ci secteur pétrole bi fii ci Sénégal plateforme boobu nag ne ñu dafa bëgg indi tontu ci recommandation yi nga xam ne kuréel googu di ITIE daal dina koy rek amal euh, ci tëralin yi mu def ci atum 2019 jëm nag ci xibaar yi aju ci secteur hydrocarbure ñëpp mën cee Diack Babacar Samb juróom-ñeenti weer ñu daal di koy def ci liggéey bile ngir daal di taxawal bile plateforme numérique cadastre pétrolier https deux point double slash cadastre tiré pétrolier point sénégal point renudev point org di lien bi nga xamante ni daal di ne disponible ngir lépp lu jëm si wàllum xibaar daal di ñeel secteur bu pétrole ak gaz askan bi mën see jot te du am benn xaj ak seen bile système ñu daal di koy taxawal di beneen jéego bi nga xamante ni njiitu réew mi daal dina koy teg jëm ci dëggal mbëbët gi nga xamante ni am na ko leeral yorinu pa pétrole bi ak gaz bi buñ sukkandikoo ci jëriñ ju ñu denk wàllum pétrole ak énergie Aïssatou Sophie Gladima bile système war a gérer lépp luy xibaar ci yorinu pa pétrole bi ak gaz bi fii ci réew mi ñu jaarale ko ci xarala yu yees yi askan wi war say mën a jot ay xibaar yu ci mel ni titre yi ñu daal di jagleel jëm si wàllum pétrole permis yi ñuy jébbal itam ba ci contrat yi ñu jot a xaatim ba yi ñu nar a xaatim di rapportu contrat yooyu la waaye itam lépp li nga xamante ni projet la te laal pétrole ak gaz ba ci xibaar yi nga xamante xamante moo daal di ruusandi ci njëgu ko pétrole gi li yooyu li xibaar daal di disponible ci ñetti module yi daal di tënk bile plateforme bile jéego daal di dëgëral taxawaay bi nga xamante ni réewum Sénégal daal di na koy taxaw ci leeral yorinu pa pétrole beex gaz bi ni ko charte 2019 bu ITIE daal di tënkee mu mel ni réewum Sénégal mu ngi ci yoon wi li buñ sukkandikoo ci Eva Marie Coll Seck di njiital comité national bu ITIE Forum Civil moom daanaka benn tànk la si daal di duggee ndaxte coordonnateur bi Birahim Seck moom dafa daal di xamle ni. muy cadastre minier muy cadastre pétrolier. taxul euh, crainte yi nga xam ne société civile yàgg na ko am mu dañ parce que loolu ba léegi dañul ndax problème société civile problème législation la dama la jox exemple est-ce que euh, citoyen bi impliqué nañ ko bi ñu joxe permis te permis boobu nañu jël dugal ko ci plateforme bi donc la la question n'est pa réglée donc citoyen bi dañ ko war a impliqué bi ñu joxe permis bi citoyen bi dañ ko war a impliqué bi ñu négocier permis bi citoyen yi dañ ko war a bu ñu signé contrat di fàttali ne bile lancement ñu ko daal di amal ci teewaayub délégation Mauritanie ki ko jiite di jëwriñ ji ñu denk wàllum pétrole ak mine Abdesalem Ould Mohamed Saleh réewum Mauritanie fas yéene sukkandiku ci bile expérience bu yees réewum Sénégal daal di koy taxawal. waa ah, ñu daal di koy jaajëfal Babacar Samb ñu daal di dalal euh, kii di Abdoul Aziz kebe eh, di àddu ci coowal Israël Palestine ñaari téeméer ñu ca daal di nag faatu ci ay nit wax ne lu mooy sax mbirum religion eh, lii di dignité eh, humaine dañ ko daal di nag salfaane ba tax mu jàpp ne ñi yëngu ci wàllu diine dañoo war a xoolaat seen i nekkin rawatina kuréel yooyu di OCI ak Ligue islamique mondial ñu teewlu waxtaan ak El Hadj Malick ganu bés bi. professeur Abdoul Aziz Kébé ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay Malick. yow nag islamologue nga tey jii ñu war a taxaw def taxaw seetlu ci li xew diggante Israël ak Palestine lu toll ci rek ñaar téeméeri nit ñàkk ci seen bakkan lan mooy place du islam ci jéey jooju am ci gox boobu. Euh, jërëjëf El ñu ngi euh, <laughs> ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne doomu aadama yëpp ñu ngi koy ñaawlu ci àdduna bi tey foofu boo ko xoolee képp ku ko xool rek sa xol dana dana tàng sa xol dana métti te doo am pexe ah lan moo ci wàllu lislaam dama yaakaar ni même balaa ñuy wax wàllu lislaam lan moo ci wàllu yëg-yëgu nit nit ku nite parce que ngoru doomu aadama ak teraangay doomu aadama bakkanu doomu aadama ñu sàmm ko loolu dafa jiitu nga bokk ci diine bi wala nga bokk ci diine be bu dee ci wàllu lislaam sunu boroom dafa ñu yëgal ni teraangay doomu aadama ak doomu aadama ñoo juddoo doo xam nga doomu aadama bi muy judd amagul benn diine dafa nekk rek projet wu yàlla yàlla sàkk ko sàkkaale ko dignité le ak ngor googu la nga xam dañ ko war a sàmm ak teraanga googu la ñu ko war a sàmm kon fépp foo xamante nii ñi ngi rekki ngor moom ngor googule wala ñu di ko tilimal wala ñu di ko tënk bépp doomu aadama tënk nañ sa bos tilimal nañ la sa tilimalal nañ la sa bos rekki nañ la sa bos kon doomu aadama yëpp ñoom ñoo war a bokk xeex loolu bu dee ci wàllu diine xam nga lislaam moom dafa dafa tëral li ñuy tuddee crime contre l'humanité ci aaya bu gàtt la ko waxee te kat bi mu koy wax banu israil la tudd min ajli zalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fi l ardi fa ka annama qatala annaasa jamia mu ne loolu moo tax ñu prescriroon pour waa banu israil ni leen képp ku rey bakkan te rey ba wul ci yoon quand je yoon nag du ku nekk yow yaay tegal sa bopp yoon yoon dafa am yoon <laughs> je sais pas si vous me yoon dafa donc képp koo xam ne rey nga benn bakkan suñu boroom mu ne mook boo reyoon adduna bi yëpp nit ñëpp ñoo yam gis kon boo koy suñu borom di wax banu Israël la tuddoon di leen ko fàttali li loolu dañ leen ko prescrire loolu waa léegi nag kon l'islam li nga xam ne mooy gis-gisam mooy bakkan benn bu rot comme su doon bakkanu adduna bi yëpp moo rot waxantuma laa tey li fi rot ci ay bakkan foofu ci Gaza ci ay góor ak jigéen ay mag ak ndaw ak i liir crime contre l'humanité yi ëpp na sax euh, crime contre l'humanité ci ci ni ñu ko daan gisee parce que dañu dañu dañu faagaagal ay ay nit ba pare yàq seen dundukaay infrastructure yi nga xam ne moo leen doon may mu néew mu bari ñu am nu ñu dundee pour sàmm seen ndoxu bët seen ndoxu kanam seen karama seen dignité euh, état d'Israël daf ko ñëw daaneel kon nag position wu jullit ñi su ni ma gisee su dee wàllu organisation islamique yi daal dama yaakaar ni lu nooy la seen taxawaay dese naa dëgër ñemewu maa wax dese naa dëggu mais dese naa dëgër loolu nag dañ koy jooylu moo xam OCI la moo xam ligue islamique mondiale la li nga xamante ni tam bëgg naa ko fàttali El Hadj Malick mooy bu kenn jaawale métit li gu ñuy métit lu li xew Gaza te mu nekk loo xamante ni nii euh, njombe la bu ko kenn jaawale ni dañuy xeex yahud yi wala danoo bañ yahud yi ñun ñi ngi koy waat yi la gën a kawe turu yàlla wi gën a màgg ni bañuñu diw wala diw du xeet du waaso du diine ñëpp la jàppee ay doomu aadama te doomu aadama yëfi yàlla la ku gëm yàlla di nga ormaal yëfi yàlla loolu moom moo tax kenn jaawale du contrôler yow déedéet mais état d'Israël moom moo nangu réewu jàppur bundu xatal leen xatal leen def leen jaam ci seen kaw suufas maam loolu nag wax dëgg yàlla métti nañu te yaakaar naa ni les organisations islamiques kuréelu diine yi ci àdduna bi ma tudd ci ñaar OCI ak Ligue islamique seen taxawaay nooy na lool ci ni ma ko nag professeur pexe bi lan la pour jàmm dellusiwaat ci gox boobu noonu. pexe bi ah xam nga sànq rek nee na metti nañu lool suñu xol bi ñu metti euh, waaye ñu ñàkk pexe lañ ci loolu. waaye nag pexe bi ñu am ñun ci ku tedd kii sallallahu alayhi wa sallam jàngal nu ko. moom mooy pexem li société civile di def maanaam yonent def ni bu kenn gisee ci yéen loo xam ne du noona lu ñu ciblé lu baaxul mu ne. na ko dindeeg loxoom maanaam ci jëf su ko mënul na ko dindi ak làmmiñam maanaam na ko na ko na ko na ko jéebaane bokk ah. nit ñi nit ñi dégg ko ñu am doole dindi ko su ko mënul na ko métit lu ci xolam métit lu ci xol bi àdduna bi yëpp def nañ ko jéebaane bi yi tamit àdduna bi yëpp def nañ ko léegi nag ñi am doole c'est la communauté internationale man nag bu may wax doole jubluwuma ci ay armes parce que doole ji jiitu je pense moom mooy dëgg ak maandu dëgg ak maandu nag ñi nga xam ne ñoo ko mën a doxal mooy ñi ñuy tuddee communauté internationale mais communauté internationale bi tey wax dëgg yàlla maandu amu fi dañoo jeng jëm état d'Israël ndax bu ñu demee ba ki ñuy wax ni moo ëpp doole ci àdduna bi waroon a boot ñi gën a néew doole ci àdduna bi ànd ak ki nga xam ne moom mooy tyran wu àdduna bi muy état d'Israël ba ni kenn du ci wax même au niveau du conseil de sécurité kenn du ci wax kenn du ci yëy yàpp ab bu boobaa nag da ngay daal di gis ni ñi waroon a jëfandikoo doole yi dëgg ak doole yi maandu jël nañ doole yi dëgg ak doole yi maandu sës ko ñi nga xam ne ñoom ñoo néew ñoo néew doole lan mooy pexe nii moom mooy ñu wéyal jéebaane gi ak lépp lu nit mën a def pour def pression ci communauté internationale bi jubluwuma ci nag ñu jëfandikoo violence parce que ñun gëmuñu violence waaye ñu jëfandikoo bépp moyen bépp jumtuwaay boo xam ne jumtuwaay yu càmm la ngir pression bi ñu teg ko ci kaw communauté internationale bi te bañ a yaakaar ni benn fan wala ñaari fan dina ci doy dañu xam ni lu gudd lay doon lu yàgg lay doon wante sunu sëriñ sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu wa nafaana bi barakaatihi daf doon wax li muy jariñ li mu jaral ki yàq na ko jaral kiy defar professeur Abdou Aziz Kébé ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax baax ñoo leen di gërëm